xibaar yi ca ñooñee bokk na ci Moussa Sissoko mi nekk secrétaire général par intérim bu FGTS ñu déglu kàddu yi mu dénk Ramatoulaye Aka ak Abdou Malick Thioune un certain monsieur Mballo Dia Thiam dafa woote benn benn congrès suba congrès boobu mu ne daf ko woote surtout FGTS FGTS def na congrès ba pare ba fal ñu mu war a fal niñ ko def le 9 mars 2024 à l'hôtel de ville de Dakar Sénégal yëpp fekkee ko ni tabba ma man Moussa Sissoko comme secrétaire général de la FGTS. constat d'huissier huissier de justice ñëw toog ñi leen di xamal ne ñun déjà déposé nañu benn plainte auprès du procureur de la République pour wan ne procureur de la République moom Mballo Dia Thiam bu utiliser suñu logo utiliser suñu cachet porté dañ ko plainte. kenn falu ko secrétaire généraux yu nekk syndicat bi jëpp man la ñu porté à la tête du syndicat dootuñu nangu muy wax suñu tur. wala muy utiliser suñu logo loolu mooy jeex. voilà mu nekk euh, coow loolee nga xam ne syndicat wala bokk euh, congrès bi mu tudd nag euh, tey jii la ñu koy xaar marché Colobane wax nañ leen ko sànq ci bopp xibaar yi ña nga xam ne ñoo fay ay jaaykat wala ay suudar métalique nekkoon ca yenn béréb ya jëlee nañ leen foofe lépp nag ci opération de déguerpissement boo xam ne kilifa yi ñoom ñoo ko def rawatina sous préfecture bu Dakar Plateau lépp nag ngir gën a ñoŋal doxalin wa ngir gën a ñoxal taaral tamit dëkk bi waaye ko noonee xaw a bett yëf yi teelu ñu leen ko yëgal Ramatoulaye Aka ak Abdou Malick Thioune njàqare la ñu daal di seetlu ca kanamu vendeur ya ñu fekk ca Colobane gannaaw bi leen gendarme yi daal di leen di dàq ci fi ñuy jaayee. am nañ sommation mais sommation bi délai yi xaw na gàtt may ñu ñu temps boobu pour ñu dem dañoo xëy rek indi seen i tracteur indi seen i jëmi suñu fi waree jëlee dafa war a am ay mesures accompagnement. parce que barki démb lan dégg annonce bi. mënoo xëy benn jour rek yor nañ say bagage dem mais comme mu defoon fi suñu ay magasin nekk fi daan liggéey. gannaaw bañ leen déjétee ca place yi ñu doon jaayee ca marché Colobane ñenn ñi daal dinañuy joxe ay solution yoo xam ne war nañ ko mën a teg ci seen kaw. nit booy xëy rek dégager ko ci benn côté mais war na am foo ko mën a dij pour mën fa nekk quoi. solution bi lenn rek la waxtaan amul parce que soo amoon lu fi toog fii di wax. ñëw nañu ne dañoo recenser nit ki mais nit ki boo ko recenser ba pare da nga koy woo. ki ni njëkk a interpellé mooy le président de la république. mais état mënu wutoon ñëpp liggéey mais dafa am yoo xamante ni ñoom maanaam ñoom ñooy créer seen liggéey mais ñooñu boo leen fekkee dañ leen fay jëlee fan la ñu jëm tey. mbooleem ñi loru ci déguerpissement bi amoon ca Colobane ñu ngi daal di woo état bi ngir mu mën leen jàppale bu baax. Ramatoulaye yaakaar ginaaw bi ñu laajee docteur Djibi Diallo mi nga xam ne mooy sous-préfet bu Dakar Plateau moom nee na commerçant yi euh, vendeur yooye ak soudeur métallique yi li ñuy wax teguñu ko fen ndax teel nañ leen ko yëgal te amoon nañu jot wax dëgg yàlla waajal seen bopp docteur Djibi Diallo ci jokkoom ak Dame Ndiaye effectivement ñoom jot nañ sommation il a un mois un mois et demi de à deux reprises man aw ma problème ak commerçant aw problème ak marchand ambulant mais képp ku nga xamante ne yaa ngi ci kaw télé bi la fa sa bagage di jaay wax naa ko waxaat ko waxati ko di fa jógee ci nii wala ci naa loolu nag mënuñ ko négocier parce que ordre public la ensuite problème sécurité la problème salubrité la problème mobilité la li ci tegu foofu ñu leen fa jëlee en dehors de fa nekkoon am na yeneen xeetu nit yi fa nekkoon ak yeneen xeetu yu def yoo xamante ne kenn mosul xalaat ci àddina mën na fa am donc dafa bi lu doyoon waar la ku agressé fa ngay làqatu ku fa dugg ñu jam la paaka ku fa toj sa oto yokk jël say bagage vraiment dafa jéggi woon dayo loolu moo tax ñu jëlee leen foofu pour wax lañu bokk ba yi fa dégâts lan la jural askan lan la nar jaay nit ko xalaat. beneen coow ci école nationale des arts métiers de la culture agent ya nga xam ne ña nga fa wala ñenn ña di tuumaal seen directeur ba ne dafay def lu ko neex ci yorin wa ba pare nag di dàq ay nit ci lu mu tegul fenn démb la ko agent yi doon waxtaanee ak taskati xibaar yi ñoom nag ñu ne dañuy xaar ci kilifa yi ñu audité daara ji audité nañu ko yore waaye surtout jële fa directeur ba reportage yu Dame Ndiaye ak Babacar Sow. liggéey liggéeykat yooyu la nekk ci école nationale des arts et métiers de la culture nee nañ seen directeur bi jubul jubbantiwul te jubalul te tamit dafa lànk bañ leen déglu. directeur bi ba mu toogee lu mu njëkk a def mooy cible cibler ñenn suñuy collègues daal di leen di licencier ñenn ñi mu taxé leen de dañu bokk parti Pastef ñeneen ñi. mu ne seen contrat dafa jeex te dañoo bokk ci collectif bi donc du leen renouveler agent bu bokk ci collectif bi da lay rétrogradé wala sax tu te retrouves sans poste. ñu gis ne aussi ci biir doxalinam dañuy def l'accaparement de des marchés au profit de sa famille. donte ne koppar yu bëri ñu ngi koy jagleel école bi at mu yàlla sàkk waaye daanaka lekkool ba yëgu ko moo taxit ñuy sàkk ñu audité ko. d'ailleurs ñun dañoo annoncé woon def sax def plainte parce que école bi li fiy am ñun dañoo gëm ne ne jaaduwul ñun danañ interpellé wu xool lan moo tax lan moo waral li alors que budget bi à chaque année day yokk. kon nag ñun war nañ mën a xam ñu ngi réclamer suñu xaalis fu mu nekk donc ñu ngi wax autorité yi daal ñu jëleel ñi fi ki fi nekk. ci seen jàllam ak taskatu xabaar yi liggéey liggéeykat yu école nationale des arts et métiers de la culture ne ñi ngi sàkku ci ni mu gën a gaawee directeur ba tekki ndombal tànkam directeur école boobu la nga xam ne dafa tukki ñenu fa fekk nee nañu mënuñu wax ci kàddoom ndax joxu leen ndigal. ca Fatick rawatina ci dëkk bi di Somb nekk ci commune Patar foofee tam coow moo fa jóg ndax askan wa joxoñ na baaraamu tuuma ña ñu dénkoon foraasu gox ba ngir ñu doxal ko yor ko waaye ne yorin wa sellul rafetul jekkul tax na nag ba ñu woo taskati xibaar yi ci ndaje ñu ne nag nañu leeral yëf ba xam ñoom niñ leen yoralee forage bi ak koppar ya cay dem ak yeneen ñu cay liggéey mu lépp mën a sotti ñu déglu ci leeralu Coumba Ndoffène Diouf kenn la ci askan wa ci kàddu yu mu dénk suy nattangoo Alioune Badara Sonko. étape bi ñu njëkk bi njëkk bi mooy ñu xamloo population bi ne am na luubalub xaalis ñu xamloo xamloo leen ko ba ñu xam ko la ca topp mooy ñu xamloo autorité yi ne am na maintenant c'était aux autorités autorités yi ñoo waroon ñëw avec leur responsabilité ñu xool exactement où est le problème fan la problème bi ne heureusement aussi le sous-préfet def na ko def na liggéey boobu ñëw ba gestu ba xam problème bi fi mu ne ñun nag la ñu jaaxal te jommal ñu la tax ñëwu fi ba tey parce que Abdou Aziz wax na ko sànq ci nasaraan nous tournons tout droit vers le chaos bilan bi ñu mujjee defal du bilan parce que bilan ni ma ko xamee un bilan financier dañ koy def ci ay facture mhm. ñu ne jënd naa peel ñaata laa ko jëndee mu ngi nii facture baa ngi nii nga wone ko mhm. mais xaalis kenn du ko calculer ci jënd naa brouette jënd naa peel jënd na ciment jënd naa jënd naa jënd naa loolu yaakaar naa képp ko xamante ne même sax jàngoo gestion sa xam-xam sorewul war nga xam ne loolu c'est c'est un manque de respect def nañ ko ci ci ci weer bee passé daanaka sax réunion ba mujul sotti parce que ñoom ñun manque de respect lañ ñu jox joxuñu ñi nekk ci comité de gestion forage somb ca Patar diwaanu Fatick nag ñi ngi ciy tuumaal baaraamu ñi ngi ci joxoñ baaraamu tuuma ñoom nee nañu euh, fan yi di ñëw dinañu euh, leeral mbir mi ndax euh, teggi tuuma leneen ci wàllu xibaar ñu ngi leen ko doon junj sànq ci boppu xibaar yi weeru avril wii ñu toll dañ ko jagleel xeex feebaru ABC ABC xam ngeen ko bu ngeen ko xamul it xam ngeen amaana ku ko am looloo tax nag ab kuréel goo xam ne ëmb na ay nit ñoo xam ne amee nañu euh, wala boog mos na leen dal wala ay njaboot yu ci ñàkk ay nit ñoom ñu mën leen a taxaw tax ba démb nag ñu organiser ab ndaje ci buntu hôpital Fann bu Ndakaaru ngir ñee askan wi ñaaxku ci nekku ne boo gisee luy màndargal ne kii mu ngi jëm si ci ABC nga mën ko cee teel a euh, taxaw boo ko taxaw ba mu yegg hôpital it waa kër docteur am ci taxawaay ba nga xam ne moom moo ca gën compte rendu bu ajaratu Aïcha Gning ak Germaine Dior. mu di feebar buy bettee ñu gën koo xam ci AVC mandarga yi lañ koy xamee. doon loo xam te ne jékki ñëw benn loxo rek bañ parfois benn tànk rek bañ. parfois benn wet lumb mooy bañ wala nga am problème ci wax bi nga gis kanam bi dafa wengatu docteur baaxum di dellusi ci prise en charge bi ñu war a teel a jël woowee waa sami waa sami ñëw xool ko saytu ko bu ñu gisee que ne ah ba léegi lii mën nañ ñottu ne AVC la ñoom ñu woo neurologue yi neurovasculaire yi ñoom ñoo koy mën a jël en charge carrément gannaaw patient bi yóbbu nañ ko ci urgence yi accompagnant bi dañ koy dalal ci maison des accompagnants dañu am ay malades yoo xamante ne mënaluñ seen bopp dara ñu ci bëjit dañoo paralysé bu ñu paralysé ku ciy ñëw di nga àndaale ñett wala ñeenti accompagnant léegi ñu wax leen ne ba nga ñëwee am ngeen possibilité dem loger maison des accompagnants bu ñu fa nekk ñu nekk dans de très bonnes conditions dina calme am sécurité ba pare dina permettre ñu amaat force pour mën a ñëw jàppale ñu ci malade bi. Afrique AVC di bésu sensibilisation ci màndarga yu AVC yi ba tax na malade bi dañ ko war a yóbbu teel ca urgence yi ca service neurovasculaire ñu teel koo faj. Mamadou Fofana je pense que lii am na solo parce que ABC bi xeena ñu bari sax tàmm euh, euh, ne dafa def malaise euh, lii moom war nañ cee mën a jóg gën ko moytandiku tandiku parce que ñu ne bokk na ci li nga xam ne mooy gën a faat mag ñi ba pare mën na leen sax indil handicap. mais dama ne la lii ku ci dugati tamit. lenn am na de. Mhm. bu la feebar bi dalee moom. Mhm. boo moytu da ngay faatu. lu leer parce que man mënuma comprendre. et ba ma demee foofu def visite bi. j'avoue que dama ne yenn yi caaxaan la en fait hôpital Fann bokk na ci hôpital yu gën mag. Mhm. service neurologie bi ñëpp xam nañ ne ñu ci bëri boo waxee wàllum neurologie. Mhm. Fann ñuy njëkk a xalaat. Mhm. mais mille neuf cent soixante la ko doon wax fii soixante cinq lii nañu amoon. juróom fukk juróom benn fukk ak juróom. pour trois millions de Sénégalais. Mm-hmm. en deux mille vingt quatre actuellement nii nii nii nii nii boo duggee foofu noonu. Mm. ci dix huit millions de personnes. trente et lii moo fa nekk. kon fanweer ak benn mais. léegi ñu ñëw ci li nga xam ne moo gën a am solo mooy nit ki daanu na ñu jël ko yóbbu ko. ñu war ko réanime mu ximmili ko mu ximmili ko mooy neuro réanimation. en mille neuf cent soixante juróom benn lal moo fa amoon mais actuellement xam nga ñaata lal fa am ci deux vingt quatre ñeenti lal kenn nettaliwu ma ko man maa dugg ba gis nit ñu fa tëdd heureusement ñaar yi amul ñu fa nekkoon yeneen ñaar la amoon ñu fa nekk mais loolu nan nañ ko mën a expliquer dans un pays boo xam ne nii nee nga may quand moo ne est sérieux ci loo xam ne feebar boo xam ne ne la muy dal nit ñi léegi moom moo gën a lëmbe jamono mm-hmm. beneen bi ñu ne à côté woy nañu tabax centre boo xam te service bu mag am réanimation neuro réanimation am euh, salle de kii d'hospitalisation am rééducation rééducation parce que ñëpp xam nañ ne boo jógee ci feebaru AVC mais il faut ñu jéem a dundalaat cër yi te loolu rééducation moo la koy may mais su 18 mois nañu waroon tabax service bi tey mu ngi ci 41 mois ba léegi nii service ba pareegul ñu jël jox ko. ëpp na ñetti at. oui jox ko 41 mois je te dis jox ko koo xam te ni voyagiste la. xamul dara ci lu jëm ci mbirum santé nga jël jox ko escalier boo fa demee da ngay jaaxle brancardier bi mënul yéegal nit ci escalier parce que escalier bi non seulement daa xat mais escalier bi nañ ko tabaxee baaxul. Mm. ñu ne à côté nañu ut ascenseur. mais ascenseur bi brancardier mënu ci dugal nit pour yéegal ko ca kaw encore. yow li ngay wax ni jar na audit ah, mais li ma la wax lu leer nañ la boo bëggee image yi ma wan la ko mi ngi sama téléphone. jar na audit de lii moom lii kilifa war man maa dem lépp kenn nettaliwu ma ko sama bët. lépp man maa ko teg bët. dem nañ ba fi nga xamante ne nii sax waroon nañ fa def conduite oxygène yi ci boppam. Mhm. fa ñu war a def ak fa ñu war a def xamuñu ko sax pour te dire. bi. toilette yi. am na ñoo xamante ne nii ci chaise roulante bu ñu toogee ci toilette war a dem toilette. Mm-hmm. mais buntu ba dafa xata xata xat ba yow sa bopp ku feebar ki mënoo ko fa dugal. mais tamit dans ces condition et loolu moo loolu moo gën a sedd de. est-ce que mm-hmm. xam nga ne mm-hmm. avant jéemoon nañ tabax service bu mel noonu deux cent millions ne may. ñu ñun xamala nañ fa def benn batiment boo xamante ne nii waa ji tabax na ko sax mais da ngay xam ne ni kii ñu ko jox munu ko tabax munu ko jagut kon donc loolu moo lay wan ne ne feebarum AVC ci réew mii ci dira ko woy peut-être yeneen hôpitaux yi am nañ ko d'accord mm. mais mënuñu am hôpital bu mel nii Fann mille neuf cent soixante est-ce que li dab du moo dab yeneen même yeneen hôpitaux yi mm-hmm. Mm-hmm. te à côté leneen li ci gën a graaw c'est plus de trois cents médecins cinq ont été formés ñu génn nekk ay neurologues est-ce que xam nga anañu ñu nga bitim réew ak yeneen dëkk dëkkaat Tunisie ak Maroc yu sénégalais di dem foofu pour di fa faju ji mais ay sénégalais nañ fay fekk ñu leen di faj wala ñeneen ñoo xam te ne nii fii nañ sàkkoo xam-xam dem foofu noonu di fa faj encore ñun ñu déboursé waat pour loo xam te nii ci xam-xamu Sénégal la jóge xam-xamu sénégalais la tey boo duggee ci toilette yi nga xam te ne nii moo nekk fa fa nit ñi di di nekk mais odeur ba bu la toppee da nga naan mais sa waay est-ce que lii c'est digne d'un hôpital wala c'est digne d'un service neurologique et beneen bi moom mooy les médecins yi fa nekk sax pour war a mën a dimbali maladie mais ñi ngi ci condition yoo xam te ne ni mais yu exécrable mmh. mais comment dans condition conditions là nañu bëgg a wax ne ni ñun bëgg nañu xeex yenn feebar yi c'est pas possible mënoo am résultat yu mel nii kon donc moo tax ma ne la mbirum AVC moom yàllaa la ciy dimbali mais boo yaakaaree hôpitaux Sénégal yi man maa la ko wax da ngay faatu. yàlla ñu yàlla suturaal yàlla ñu yàlla suturaal. malheureusement xam nga ministère de la santé mbaalo Dia wax na ko tey te loolu moom mooy dëgg. Mhm. ministère de la santé il faut ñu xoolaat ko. parce que la fa am li dafa jéggi. dayoo médecin ya ñoo ne ci bureau yi eh, au lieu ñu nekk ci salle de yi. tamit yeneen région yi. on construit des hôpitaux. Mhm. mais y' a pas de pratiquant y' a pas de personnel. Mhm. mais loolu mënul nekk parce que investissement yi rek boo xoolee boo jëlee budget ministère de la santé 2017 ba 2021 2022. c' est plus de 490 milliards yoo xam ne dugal nañ ko ci lu jëm ci wàllum construction. Mhm. et à côté ressources humaines yi fan nga leen di def. mais hôpital bu ñu tabax ak plateau technique ak nit ña ñoom ñooy ànd ña koy ñooy faj mhm, mhm. mais ñi nga xam ne ñoom nga ko tabaxal bu ñu ñëwee fekk ñu fa médecin lan mooy njëriñu tabaxu bâtiment ba ak ma plateau technique ba nga fa def amul njëriñ amul njëriñ yàlla ñaalu sutural Mamadou Fofana jërëjëf di la gërëm di la sant boo week-end ba lëndeeg jàmm nga nuyul ma njaboot gi yëpp mhm, jërëjëf